doore ko nag eh, ci maladie di ci hôpitaux yeeg ñi weyale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñu delluwaat ci seen i activité ñi caabi féete ginnaaw nekk ci bërëbu yarukaay yi ñu ñaanal leen yàlla génne leen fa dara bañ leen faa dugalati waaye sa su ne rek xel sunu dem ci way dawlu yi ñu di leen ñaanal yàlla atte leen ci yërmandeem jéggal leen seen i bàkkaar tàbbal leen ci àjjana yi gën a kawe ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa diine yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen di gudd fan gu ànd ak wér waaye ñaanal leen yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg ñoo jiite lool ci lu jëm ci wàllu diine ji kilifa aada itam naka noonu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar di leen masawu coono nag tey moom dañ leen di masawu bu baax a baax ndax li ko waral mooy du lenn lu dul rek euh, jamono bii ñu toll euh, muy jamonoy tabaski ñun ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi fëgg sa gémmiñ ndax njaboot gi nga xamante ni yaa leen yor ci biir kër gi te war leen a taxaw war leen a defal euh, aada jiite réew mi te njaboot googu yëpp ca lañu ñu banxaasu la ca banxaasuwaat ca la mu jàpp yëpp sewetaat ci sa bopp kon jaar nañu massa coono jàmbat ndox mi mu ngi ci réew mi jàmbat courant bi mi ngi ci réew mi xar yeeg tissu yu cher yeeg yëpp te dafay delluwaat ci état bi fa la ñuy jubalaat kon dañ leen di wu coono encouragé leen waaye itam ñaanal leen yàlla may leen projet yoo xamante ni rek dina sottal yooyu yëpp Euh, donte nag ni ma koy waxee saa su ne xala nga dajul suuf satisfaction totale sunu borom mi ñu bind sax am ko ndax bés bi yàlla sàkk nga dégg ñu ne yàlla nee na nangam ñu ne waaye kon comme sunu borom moo ko amul asama ki nga xamante ni moo jiite réew mi ñu ngi leen di masaw bu baax a baax di nuyu bii réew mi yépp nag di leen ñaanal jàmm di ñaan daal bés bii ñu dëgmal yàlla nañ ko fekkee ba weesu ko tey it yàlla nañ ca mën dara kenn ku ci nekk la nga cay sabab yàlla na borom taxaw la ba nga am ci sa kemtalaayil kàttan bitim réew itam ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar ñoom itamit masawu leen coona parce que sunu xel ak sunu xalaat yépp mi ngi ci ñoom bëgg a satisfaire seen bopp ca fa ñu nekk satisfaire seen njaboot gi ñu fi bàyyi jur yi leen meññi ñu satisfaire leen ña ñu bokkal ñu satisfaire leen yaakaar naa ni yéen bi diis na ñoom ci moom waaye nag ku yàlla téeñal ku ne mu oyof ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla leen ba mu oyof yàlla sàmm leen ñu fekkee zéro absent daal incha allahu taala ginnaaw euh, tabaski bi xam ngeen ni niñ koy defee altine bu nekk rek yëkkati tem waaye comme lu defu waxu lu ay di njàmbat toujours ñu ngi ci tabaski ji rek ak ya ca aajowoo yëpp la ca jigéen ñi jànkonteel ak lañ ca teg seen bopp te warul dinañ ci ñëw ci suñu jeexitalu émission waaye nag danañu delloowaat buum ca booy booy ba parce que dese nañu ay éléments yoo xamante ni dafa jëm ci wàllu dimbalante te yaakaar naa ni loolu mooy tax lépp oyof équipe bi ni mu daan teewee nag tey teewewu ko sama jarbaata fi nekk imaam xam ngeen ni jamono yii dafa tukki ñu koy ñaanal ci réew ma mu nekk incha allahu taala yàlla na ko fi yàlla defal jàmm yàlla may ko itam la muy toppatoo sotti ba mu dellu siwaat àndaat ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy euh, émission bi waaye na comme ñu ngi fii dinañ jéem rek yaay doom su ko defee rek jéem leen a satisfaire àndandoo ko génn ci téléphone yi jarbaat maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar imaam daa dem vacance waaw dafa vacance yi moom ba muy sa <laughs> euh, dem na lanu xamoon ne dana ca dana ca topp <laughs> waaw baax na ñu ngi koy nuyu bu baax <laughs> nekk yëpp impañ uh-huh. maa ngi lay ziar baax a di am mbégte saa su nekk di ànd ak si émission kër gi <laughs> di nuyu képp koo xamante ne daf ñuy seetaan sur la 2STV waaye di ko njëkkee sama yaay ji dana yusu bammaar gay mi si betwaar bi si ndakaaru yaay awa sama rakki xol di a tëdd yàlla na oyof tooy ci kawam di ko ñaanal suñu woy dawlu yëpp xam ngeen ne saa su nekk dañu am mbégte ànd ak yéen si émission kër mhm. yëpp nag sama jéeg balaa koy moom laa koy jagleel moom mi xam ne nekk woon France rek di palaali naka ay waaw jay na ba jay na ba li ah mhm. chéri chéri Mouhamed Ndiaye mu sama yaay Maguette Pay mhm. noonu la def ak man léegi am naa yëri julli léegi jeena ba indi la ma yëre julli waaw d'accord léegi yow da ngaa bëgg a reere sama ndekki parce que tey damaa jël sama yëf marko may sama jeeg nga jiitu ci <laughs> sama jeeg bi ma habillé nii kon ñun jéegi ñaam daal tawarkàlla macha allah waaw bu baax ragal waaw waaw moom da ragal ragal njëkk yi matu koo jox nde am na ko mi ngi fi waaw mënoon na ko wax ne jëddi jëddeereel ne ñambi bu ñorul mënoon na koo def luñ ma wax lu ne baat bu ñëw de dem dellu ndax damay sëy te ñoom seen wàllu wéy na waaw mi ngi fi mënoon nañ def tey cax ci jeeg jooju laa jëm waaye nag ñu moom suñu bopp rek ñun bu boobaa waaw parce que am nga njëkkee itam du ndaw waaw boo yoree xolu gaynde ba doo ma defal dara ma yor xolu muuma ba du ma la waxal mm-hmm. dara maa muuma <laughs> mm-hmm. kon nag jay na ba yàlla sa jàmm yàgg <laughs> macha allah jàmm na ba yàgg jàmm yi ndey dëcce mi nga xamante ni moo ma defal nii sama couturière boobu eh. di jabari taaw te yàqu ko benn yoon yàlla na jàmmam yàgg waaye Astou Diallo mi nga xamante ni mooy sama bras droit itam mm. nga xamante ni macha allah lu ma soxla lu ne rek damay woote téléphone yónnee koppar ya mm. du mat sax li may yónnee waaye dana ki taxaw bu baax a baax sama jàmmi jeeg jooju daal yàlla na yàgg waaye tey moom ku aaye wal sa moomeel ay gi ci boppam ki ko moom du kenn ku dul ki nga xamante ni mm. moo toog ca kër ga nag ba xale yi màgg macha allah di xew ni ki démb ak euh, tey ji yàlla na fekke lu bare bare bare bare ñu si la euh, te yàlla defal ko jàmm moo xam la muy mbébét ci xolam yàlla ko sunu borom defal defal ko borom këram bi xamante ni nag moo ko ne nag ñii rek laa am waaw waaw ci am solo ah xam nga góor dafay taxaw ne jabaram mm-hmm. ñii laa am soo ànd ak ñoom ma ànd ak yow soo àndul ak ñoom ma wan la ginnaaw baa xam nga noo téye say sœur noonu la sa jabar di téye merci beaucoup waaw man bëgg naa góor gu am fula nag Momar nag noonu la taxawee ah yow sañ na kaa bañ a taxawee Babel Demba moo yee sanxal si laax bi tooy macha allah <laughs> bu ko taxawee woon yeddu yeddu dal si kawam wallaay faw mu taxawee noonu caam wallaay <laughs> allah insha allahu taala dinañ ci ñëw ci jeeg mhm. ji nga xamante ni ñu ngi ci biir kër yi itam mhm. yi ñu leen di faral di teg wallaay euh, ci tabaski ji metti na mhm. ba ñu xañ seen borom kër yoolu tabaski wala ñu xañ seen bopp yoolu tabaski tey neex lool imam toog fi mhm. waxtaan ak ñun mhm. ci xaru tabaski lu ca jóge lu ne rek lan la ki charia wax mhm. euh, parce que nag dafa nekk euh, nee nañ sunna soo xamante ni sunna su rafet la sunna soo mën a jële tuyaaba mais boo demee ba tuyaaba jooji teraanga ya ngay def dindi tuyaaba ja dindil ko sa borom kër dindil ko sa bopp yow te nag sa yaan yu bees yi rek ñoom la ñoom lay dal yu mel noonu ñi nga xamante ni dañuy soog a sëy si bees jël tànku njëkk génne jël fallaray ndey génne baat ba nga jox ko géwël ba doon fees ah. lu des ci xar ma mën naa tasub sëy de. waaye bu ko deful ñu xas ko. waaw léegi nag yow yaay choisir xasi wala sëy bu tas ndax yaakaar naa bu sëy ba tasee da too defati teraanga. foofu la ñu jëm tey ci émission bi incha allahu taala waaye ni ma leen ko waxee rek dañu koy dooree ak dimbalante. Mm-hmm. Euh, ñu ngi ci jàppale gi nañu war taxaw nit ñi bu baax a baax a baax suba dinañu ànd ak ay invité mm-hmm. à partir de demain incha allah. Mm-hmm. su ko defee rek ñu waxtaane ko ñu jàppaleñ ci waxtaan wi. Euh, ñu ngi ci dernier virage bi la ñu wax. waaw ñii ne dañu tabaski lundi la. incha allahu rabi incha allahu taala nañ ko fekkee ba weesu ko te yàlla nañ ci mën dara. mën gi nag dafay fekk nga def li nga mën. wax li nga xam boo tëddee nelaw mhm. nday jigéen ñi nañuy def loolu mhm. gis nga rang gi ci tailleur yi hmm. matu ko fi déedéet parce que màggal ngi ñëwaat da ngay rangi ci tailleur yi bien sûr te ci korite la ñu jógee rangoon nga ci tailleur bi mhm. jarul ñaaw jarul yàpp sa pàlla déedéet euh, xale yi sax defal leen lu leen neex parce que xale lañu waaye nag mag ñi ci boppam nañu delloo si waat seen xel foofu man man laa bëggul si mag yimpaañ mag muy rangi tabaski si tailleur man bëgguma boobu mag soo ko xamul doo ko xam waaw man maa bëggul boobu mag dama yaakaar na nag seenug ndaw day na raw ñu bëgg koo dabu seenug mag lu ci ëpp loolu lay doon wala ñu ñàkk a noppalu rek ak noppal ñi leen yàlla booleel waaw loolu yëpp mën na see mhm. nekk mhm. parce que bu fekkee ne da ngay mag déjà waaw mu jaral la ngay toog si tëye di fa fanaan ak a xuloo ndax sama ñaw bi parewul mhm. man xaw ma boobu mag ban mag la moo ma jaar te instant bu woon la fekk nga nekk sa kër ga coiffé xale yi xam nga bu ñu waxee tabaski wax dimbalante ñu ñi soxla ko lool lool lool jamono ji ñu toll sànq yaa ngi wax ñi ñi ñi yàlla jiital. Mhm. am na suñu si bëri jamono ji fay nañu seen i téléphone. dëgg la kenn mënatu leen a jot téléphone. <laughs> maa ci xam dara. <laughs> ndax saa yoo wootee ñu ne la dem na boîte vocale. fu ne fu ne war naa fa dégg nga mu xool ko muy sonné du la jël dégg waaw yaa may mhm. ñoom itam bu jamono yi toll mel nii. ñoom dañu soxla nit ñi di dem si ñoom. dëgg la jamono yi peut-être am na ñoo xam ne seen i loxo jotul seen i mhm. ñu war a ñëw si ñoom. nit njariñ rek lañ koy doyee. dëgg la. wallahi nit njariñ lañ koy doyee njariñ kese lañ koy doyee déedéet muy ku mu mënti doon kenn du ko yàpp kenn du ko def dara mu noonu sa njariñ rek mu ngi noonu yow bu fekkante ne yàlla daf la jiital mhm. nga am loo xamante ne ni ëpp na say soxla mhm. ñi la yàlla booleel de leen dimbali ci loolu mhm. mais lu toll ne tabaski nga am sa ay nit niñ ko mën a waxee bu fekkente ne militant lañ koy wax nga am sa ay militant nga xamante ne dañ lay jugal guddi bëccëg taw naaj di la xuloo di la xeexal nga xew lu toll nii xew nga war a gëstu yow itam say militant mhm. bu fekkante ne yàlla man na la ko un mhm. million bi ngay jël mhm. du wàññi dara si sa am-am ndax sa jabar li muy sol jur boobu ëpp na un million dëgg la nga jël ko def ko cinquante mille cinquante mille jamono ji borom kër goo jox fukki junni day mel ni ay milliards nga ko jox yaa may dégg kon yéen itam ngalawaay na ngeen gëstu askan wi te xamante ne nit ñi soxla nañu dimbalante gi fii ñu toll soxla nañ ko lool parce que eh. dañuy wax ne est-ce que yëg ni maa ah, la man da ngay reere sama ndekki tout le temps <laughs> loolu loolu ci boppam moom ma ci metti ak mooy maa sa copie craché damaa topp say pas pas à pas yàlla yàlla lafal ñu <laughs> ci amin amin caam <laughs> amin xam nga mhm. mu mel ni jamono ji ñoom itam soxla nañu ndimbal lool lool lool mais jamono ji ngeen yóbbu seen téléphone liste rouge mhm. ngeen yóbbu seen téléphone yi boîte vocale mhm. ngeen yóbbu ku leen woo du leen mën a jot wala ngeen def ko mode avion loolu tam rafetul te bu passé ngeen duggaat ci biir nit ñi di wër nit ñi di def porte à di def kii loolu rafetul dimbalante leen gis nga li tax ma ne la da reere sama ndekki tey mm-hmm. dama démb dama yeewu. waaw ñu fëgg sama buntu kër. wallaay ne ma jàkka ji dañu def ay mbuus. Mm-hmm. maa ngi remercier bu baax a baax di ko doore ci chef de quartier ba. Mm-hmm. Ousmane Ndiaye ak euh, kuréelu imam yëpp. su ma ko tegee ci loxo Karim Bey wala imam Sini Gueye ma nga xamante ni ma nga màkk. ak euh, ña fa nekk ñëpp. rek euh, day daal di yegg ci seen loxo. ñu ne maire bi lam ñu joxoon. déjà jox nañu pour imam yi. ak yenn borom kër yi. mais la ca des dañ ko jël jëndee ko. Mhm. xam nga ki nga yeewu fëgg buntam jox ko soble. waaw pombiteer. waaw bineegar. saf-safal yeeg yi cay mhm. ànd kaani poobar laaj. waaw xam nga kooku daanaka euh, defaral nga ko tabaski. amulay xar day jënd yàpp marina rek lakkal ay doomam. merci beaucoup. Mhm. dafay ñëw ci loolu nga wax dafa nekkoon sama xel. pour ñu mhm. remercier maire bi nga xamante mooy maire Yoff. ñàkkul ne am na maire yu koy def. waaw mais man boobu laa gis. effectivement fa nga dëkk te nag boole kook mhm. a jot lool. Mhm. muy maam maam ma bàyyi ma fen la yu mel noonu dafay dafay dellu si dëggal li nga xamante ni. moom nga wax léegi ne. boo soxlaa nit ñi dem ci ñoom. jamono bii nit ñi ñoo leen soxla. dëgg la ñi leen soxla. d' accord ñi leen soxla xam nga loolu mu def mu nekk lu rafet. maam Roxaye sama maam jooju maa ngi koy nuyu des fois sax ndeysaan modestem ma benn élément. mu apprécié ko bind ma message. dëgg la jabaru ministre la maam maa ngi lay dégg gisaguma la. <laughs> man de du ma am ndax gis naa ko wala gisuma ko kon dag may dóor. gis nga ko arrêté xam naa ne nag maa gannaaw ay yéegul sama escalier de. <laughs> ah yow demal continuer rek. damay dégg gis nga impaañ yooyu dafa am solo. Uh-huh. parce que nee naa léegi nit njëriñ lañ koy doyee. ni ñuy soxlaa ñi ñi itam noonu lañ leen di soxlaa. dëgg la nekk tamit jabaru kilifa. Mm-hmm. da nga war a jàppale sa borom kër. bañ a mel ni gaynde guy toggum tabaski. mu ngi noonu gis nga naan nettali benn anecdote. Mm-hmm. sama benn ndaw. Mm-hmm. kilifa. nee na gi toog nañ joxoon rendez-vous ñu amoon benn programme bu ñu doon def toog nañ fa huit heures ci suba. Mhm. ba dix huit heures ci ngoon. nee gis kilifa gi bi ñu ñaanee gardien kilifa gi pour ndox mu naan mu ne ko fii su ma fi génnee kaasu ndox may leen ko sama dàq xaj na fi. bu sama kër ngeen ma fekk dinaa leen may ngeen naan te jabaru kilifa mu ngi sëpp ci kaw kiiwam di leen xool di dama ko ñëw. kon añuñu. huit heures suba ba dix huit ngoon. du mën ko xaar na fekk dañu amoon association dañu amoon benn programme bu ñu amoon ñëw waroon ko jox kooku. te jamono yooyu mu nekkoon ndomba tànk borom ndomba tànk bu rëy si réew mi mm-hmm. anamu tey yàlla def na moom nekkatu fi déedéet yaa may dégg mais lii ba léegi ñu ngi koy nettali pourtant bu fekkonte ne jabar ji booba baax na mm-hmm. case bi muy ubbi sax dugal leen fa heure añ jot te du kooku du juddu jee du mbadam taa fi la dëkk fi la dëkk jox leen añ ñu añ ak xam lu baax leen reer ñu reer mm-hmm. kii jox leen añ ñu añ may yu sedd yooyu ba léegi même nee nañ ñoom bu ñu gisulee kilifa gi sax seen xool sedd na kon ba léegi ñu ngi koy nettali pour wax la ne la yooyu xeetu sarax la sax mu ngi noonu pour wax la ne la lépp lu fi waay jàpp rek da koy rëccaat mm-hmm. kon yenn daraja yi boo ko yoree jarul yëkkati sa bopp jarul gonfle ba nit ñi duñu mën a jot ci yow da ngeen soxlawaat nit ñi rek kon wàcce leen seen bopp yi muy kilifa yi góor yi ak seen i soxna itam dëkk si koñ surtout dafa am loo xamante ni soxla si moo ciy jàppale jigéen a koy mottali Mm-hmm. mais jigéen mooy parce que bu fekkente ne yow da ngaa nekk ministre. waaw demoo mooy dem di ñëw mooy indi ay programme yow li nga ko mënal. mooy recevoiral ko nit ñi. Mm-hmm. yaakaar ne ministre ni moom la. déedéet wala député. wala sa jaba moroomu jabaru ministre ni moom. Mm-hmm. déedéet wàcceel na gën a suufe parce que ñaan yooyu da koy soxla. mais yooyu ngay soxla. parce que yow mi nekk si koñ bi xam nga ne waa koñ bi kat xam nga fi seen doole toll. bu ko defee léeg-léeg yow sa jëm bopp boo amee dara parce que ministre ministre la jabaru ministre ministre la doomu ministre ministre. waaw jànku ministre sax ministre la. waaw <laughs> léegi nag si yooyu di ruus si nga mën a jàppale sa jëkkër da dégg eh, kii yi ñu naan eh, eh, Marème Faye Sall day jàppale président de la République. mais une grande dame noonu lay toogee da ngay jàppale sa borom kër sa borom kër. lépp lu mu dugg nga tooy si xep. comme ñun fii suñu yaay Marème Ndiaye ni muy jàppale suñu papa El moo koy jiitu ci kër gi waaw mu ngi noonu donc yooyu noonu dafa baax soxna di jàppale borom këram mm-hmm. rawatee nag lu mel ni bu ñëwee muy tabaski bii nga xamante ne ni borom kër yi soxla nañ ko leen jàppale soxna yi nga la na ngeen am compréhension boo xamante ne seen borom kër bu doolem demeewul noonu lépp lu ngeen am mu bëreeg mu tuuti ñap ñabal leen ko ndax seeni doom bu ngeen amulee xar ngeen jënd yàpp mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ñu tabaski waa nañu dem jënd ji yàpp ñëw lakkal seeni doom ndax xale lu ko nax yomb na yomb na yaa may dégg tey mm-hmm. yàlla mën naa def ñu dem ba am xaar pour wax ne la àdduna loo yenu rek mu diisal mu diis nañ ko oyofa la mu oyof bu jeex na ba pare jeex na ba pare macha allah te it nag fi nga koy séentoo ak fi mu lay rombee benn lay doon. lay cam donc mbokk yi mën nañu àndandoo ak ñun euh, ci 88 628 14 13. wala 00 221 33 841 23 34 ñu àndandoo ko ñun euh, ci émission bi. Mhm. rotal si seen xalaat euh, ci li ñu yëkkati. Mhm. ci dimbalante gi te yàlla tax waaye bu ñu demee ba xaajal itam. tey jii amuñu ñaankat yu ñuy dalal parce que ñoom ñëpp ñu ngi ci waajal tabaski bi moo tax mhm. temps bi mayu leen ko. waaye danañu continuer ba midi mooy 10 incha allahu man ak seen doom Ndeye Pétaw wala seen rak seen jarbaat su ko defee rek ñu daal di àndandoo euh, ci émission bi ak yéen euh, nañu delloo siwaat xel yi bu baax a baax jarbaat dafa indi lu am solo mm-hmm. su la yàlla dénkee dara nit kenn du ko doyee dara lu dul teraangam mm-hmm. te boo yaakaaree ni bu ma ko joxee daf fiy manqué te du dellu siwaat yaa ngi ci erreur ndax nit ki bu bëggee am dara na koy sala saxoo di ko joxe mm-hmm. loolu ca sama ndey laa ko déggee woon boo bëggee am dara di ko joxe ndax li ngay joxe rek moom la la yàlla di delloo xamante ni duñ fa yegg ndax mënuñoo génn te ànduñoo ak escorte mënuñoo xam ñëpp sa jabar la fekk ci kër gi ngay jabaru autorité wax naa la bul mel ni gaynde guy toggum tabaski te nit ñi kenn moomu leen ah. soo ubbee say buntu ñu la soo ubbiwul say buntu ñu dem seeti feneen foo xamante ni nooy na ñu dem fa ba pare waddal fa seenug ñaan te nag am na ñaan yoo xamante ni yàlla mën na ko rus mhm. surtout ñaan moo xamante ni dafa war a jógee ci raxasumu tooy mhm. nañ koy sàkku te loolu jigéen ñi ñoo ko mën a sàkkul seeni i borom kër nañ ci bàyyi xel bu baax a baax man daal côté boobu moom kenn laa ci xam te naw naa ko ci muy maam roxoyo cuun yàlla na ko yàlla defal jàmm bu baax bàyyi kook Abdoulaye Diouf Sarr nee naa ko sa fëst lay diggu dug neen ndax ubbil na buntam ñëpp xamaguma buntu këramaa ah. barki yonent yàlla Muhammad xamaguma buntu kër man sama jóg yombul dëgg la mais nag ña fay dem ñooy ñëw di ma wax dëgg la ak nañuy comporté woo ak mais fii ku fi baax ñu wax ko kese te mbaax day law baa xam nga leen na waaw Sénégal gi boo fi bonee mhm. benn bon ngay def waaw forom bu mu yow kii di wa kii de moo fi defoon nangam kii nangam xola benn baax ngay def mu siiw tasaaro yi dooy dégg ñu ne la comme bu fekkante ne suñu lébu mhm. booy sëy si kër waaw boo defalee Adja Mbayang teraanga waaw bu amee tey nga dee waaw képp ku xew Adja Mbayang bu ñëwee day wax la nga ko defal te pourtant benn teraanga nga génn benn teraanga nga génn parce que ñoom dañuy sot Sénégal tam noon la ñu mel dëgg la kenn ngay defal mbaax mu wax ko keneen keneen wax ko keneen sax mhm. mbaax lambe sax mbaax wër ba ñëbbee ko yaa may dégg mhm. mais kenn ngay def lu bon mu nettali ko keneen mu nettali ko keneen sang bon lëmbi yaa may dégg mhm. léegi nag bu ko defee bu mel noonu bu amee yow mi nga xamante ne yaa nekk ku góor ki yaa ko war a mën jàppale mhm. jàppale ko bu baax a baax sur tous les mais ba a tëj sa buntu kër ku ñëw nga ne bon bi ko kan la ndax jël na rendez-vous gis nga am na jabar ministre yoo xam ne bi ñu wàccee ba léegi mënuñoo nekkaat ak nit ñi est-ce que xam nga lu ñàkkoon kersa dañoo yéegaloon niveau bi nag xeeb seeni mbokk parce que foogoon nañ ñu dégg madame la ministre. waaw ndax nee naa léegi jabaru ministre ministre la yi euh, dematuñu seen i xew. déedét ut seen i suq. xam nga alkaat yu mag yu mën a duy gasoil ut seen i suq. Mhm. yaa may parce que booba temps dañ leen dañ leen jox kii bon. Eh, suq <laughs> suq waaw. non sérieux suq la ñuy ut suq yoo xamante ne nag mën nañ ma boot di daw dégg léegi nag gis ak ma toll dégg léegi nag bu ñu wàccee dañuy foog ne kii ba titre ba fa nekk nekkatu fa te yàlla mm. lu mu la may da koy nangu wallahi alazim lu mu la may da koy nangu wallahi nga commencé musoon wax ne ko ah léegi kii bi naa bi fexe bu ñu kii ba kii ñaari mandat mënoo ko weesu de dëgg la <laughs> da ngay del si waat si ñun <laughs> wàcce ko def ko nànk rek xam nga ma la pour wax ne la jarul ajal déedéet mais baadoo rek la dara di ñëw mu di ko soppi. Mhm. loo yaakaarul sa àdduna. waaw bu la dabee. nga soppeeku nga soppeeku. moo tax ñuy faral di wax ne ko amagul amagoo jikko. dëgg la fekk na booba sa yar bala. Mhm. mën nañ laa yar sax nga juddu si ñàkk. Mhm. xëy yàlla betee la wërsëg. dëgg la euh, suñu locataire yi la nekk ci palais bi. xam nga palais moom góor naaru goy moo ko moom <laughs> may dégg sama maam góor naaru goy ko moom. <laughs> buñ ko seetaloon dañ ciy am. dëgg la mais locataire dafa nekk. daam bu ne mën na faa dugg. daam bu ne. daam bu ne kon jombul benn daam. déedéet ngala nag buy ñëw. na la fekk jigéen benn lal jom noonu ngala nag buy ñëw. na la fekk nga nekk nit koo xamante ne nga ne suñu première dame ba fa nekk tey waaw loolu neex na ma ci moom loolu am na si solo xam nga période bi booy wax ci moom dañ naan dara tax dee waaye ku ne xam na oyofam wallaay macha allah man mosuma ko gis sax yàlla xam na ko man ko gis benn yoon yàlla xam na ko mhm. mais nit ñi nee naa la léegi booy def lu baax mhm. day law ah kenn moomul kenn ku def dégg ku deful doo dégg tus ok neel kooku alo ñu jël ko si 88 628 14 13 ñuy waxtaane wàccaay tabaski mu aaju alo allo. allo waaw. allo Ndeye na ngeen ñu volume tuuti allo. allo waaw. waaw sama sëriñ ñu ngi lay ñu yokk volume bi tuuti. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. maa ngi leen di ñaanal yàlla. amin amin amin yàlla nangu. yal na leen yàlla defal jàmm. allahumma amin ñu bokk. yéen ñaar ñu toog foofu yal na yàlla dëgëral seen cër. allahumma amin ñu bokk. Eh, sama participation mooy lan. mooy. mooy mu nit jigéen dimbale jigéen jigéen day dimbale ji eh, góoram. Mm-hmm. Eh, te yàlla tax. waaw. Mm-hmm. dëgg la. yéen nag jigéen ñi yéen sonn ci kër yàlla na yàlla fay. allahumma amiin ay waay laa laa tudd maa ngi téléphoné maa ngi téléphoné Mauritanie. Mauritanie mhm. Youssoufa Gueye depuis Mauritanie. waaw. jërëjëf waaw waaye yal na yàlla fay. man daal sama xol sama xol dafa fees ba nga xam ni. wallaahi mënu ma xaw ma sax lu mu leen di gërëmee ndax émission yi ngeen di def yi. jërëjëf Gueye jërëjëf Gueye. waaw yow euh, Ndeye Tataw. naam. ku bëgg participer ci xo kii boobu émission kii boobu ngay def nan la nan la war a fan la war a jaar. WhatsApp maa ko dund bi. Ah. WhatsApp maa ko dund bi. waaw numéro euh, la wala. Euh, léegi xam nga nooy def. ah. da këpp su ko defee nga jël sa bic ak sa feuille wala sa téléphone. waaw. su ko defee danañ la jox numéro bi nga xamante ni boo bëggee participer ci kàddu yi. waaw kon comme léegi dama tëboon yoon waaye suñu jógee rek kanam wax ma ko. ayca waaw. yow jërëjëf ñu bokk ko. yal na ne yàlla suturaal. allahumma amin ñu bokk. ndeysaan am na solo tey nga ñaanal ma kenn mënu ko wax kenn. déedéet macha allah yal na yàlla nangu ñaan yépp ñu bokk. Euh, bokk koog mboolem koo xamante ni yaa ngi yeewoo Mauritanie mhm. wala Gambie wala Guinée wala Mali mhm. waa Congo ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax nee nañu ñoom itamit mhm. euh, sànq jot naa ci benn message ñu ne son ou deux bi dafa xaw a foofu nañ leen ko yokkal souvent ñu ngi ma koy wax donc euh, nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñoo xam équipe technique bi naka lañ koy gëstoo mais daal ñu indi lu am solo moom itam dégg nga li mu wax góor ñi nañu jàppale seen jëkkër yi su fekkente ni góor nga goo xamante ni yàlla dala may na la sa soxna jàppale waaye benn ndomba tànk itam sa soxna na la jàppale ba yemale ay bëgg mooy yoon xam nga soxna moom jàppale borom këram mhm. ndomba tànk ak ñàkk ndomba la dëgg la ba xut mhm. léegi dootu ñaar kenn ngeen mhm. lu fanaan si moom si yow lay yeen a a mu neex daf ko war a jàppale mu naqar daf ko war a jàppale parce que naqar bi mooy tabaski baa ngi jub xam nga ne sa borom kër kat bëgg na mais amul dëgg la wala daan na def ba mënatul dëgg la wala ndogal dal na ko nga muñ loolu mooy jàppale sa borom kër mm-hmm. nga nekk sa borom kër tamit mu naqari ba yàlla def mu neex mm-hmm. mu am ay yoo xamante ne bett na ko si àddunaam waaw nga jàppale ko si loolu mu gën a ñoŋ mm-hmm. loolu mooy jàppale borom kër donc mu mu si mënti doon rek soxna moom dafa war a jàppale borom këram ah yërmande gi daf cee war a am mu ngi noonu surtout nag ñu teggi natt yi sama natt bi bu ma ko teggi parce que bu ma ko teggee day dem ci tabaski xalaatuñ koo teggi na dem ci menn mbagg rek li ngay natte daf lay leer ni ci ruusi ak ruusat ruusitaat waa ji yéen tamit da ngeen a yàq ah? mën a yàq de yéen ñii lu njëg njaag yéenay njaag yéen nag <laughs> yéen gone yi luñ daan jiiñ mag ñi ci boppam ci yéen la ëppee léegi dégg luñ def yéen a nga ca sëriñ sa waaw yéen a nga ca natt ya waaw natt yi banque yi sax ngeen koy def léegi waaw ngeen defatu leen natt parce que gëmatu leen ci yàlla ndax buñ ko nattee ci kër gi mën nañ koo sañ wóorul de waaw kon yéen a ñu gën a garaaw waaw parce que xam nga yéen yéenay suñuy yaay ndax yéen bu fekkee suñu paap dañ leen a jox ngeen ruusal di denc tabaski jot suñu papa xam ngeen ne retraité na wala loxoom jotul gannaaw te passion léegi yi nga xamante ne mënut a jënd xar fay courant fay ndox fay luyaas ak ñuy jàmbaar yaa may mhm. léegi nag yow au moins bokkoon nga te boo xamante ne nii bëccëg cent franc la waaw mais teggi ko même bu dee benn fanweeri junni jarul sax yow ngay manifesté wu ne yaa jënd xar mi si kër gi xam nga jigéen tamit lu mu la defal ñaar dala koy wax dala koy wax dañ nag ba ñëpp toog mhm. <laughs> mu gàddu xar mu ne ko tuxaañ ko digg ba sama xar mi mm-hmm. ñëpp xam ne ren sa jëkk a jëndul xar loolu tamit rafetul rafetul nit da ngay sagal sa xar sax mu ngi noonu doo taxaar ba guddi xaaj nga yëkkati ko puux ko sa borom kër waaw kay mu génn dem ñëw nga ne ko andi jaay yaa ma sagale lii waaw yal na yàlla yokk sab sag waaw ñaanaloo ko sa bopp nga ñaanal te yàlla man bëgg na bëgg naa jigéen buy sagal borom këram te bëgg naa aussi góor ñi mm. bu ñu këtti këttee ba am jouru taba koyte wala jouru tabaski bu ñu sañsee nga bàkk leen ah jiin leen wax leen seeni i ah, mbaax baax xam sa maam maami jëkkër dafa baax mais dafa baax mais mais man bëgguma jéeg buy say xamul mbokki jëkkëram <laughs> mënul tagg jëkkër yo ba bëgg naa ko de <laughs> bañ a mel ni man <laughs> ah tabarkalla macha allah xam nga yow xam nga ñi si bokk nga boole leen si comme ni ma koy wax gis nga góor dafa dafa dafa bëgg ku ko jaay dafa bëgg waa góor dafa bëgg ko ko jay sax waaw mooy waaw góor gi waaw uh-huh. jay ko ba waxal ko loo xamante ni nekkul wallaay taggal ko ko ay maamam waaw ah? mm-hmm. lu mel ni jour ki mu soli ji ba ñëw nga ah. bàyyi lépp dama daan gis mag ñi ah. lal ay sëru rabal yàlla bu ñu sol seen silet nag ba sol seen salopette yi war a dem rendi ji xar nga taxaw di ko bàkk loolu dafa neex te nag euh, jànq naakaaloon waxu ah naakaaloon déedéet cat damay dugg <laughs> <laughs> te te te nag jànq gis nga gis nga foofu foofu ah cim tabaski neexoon na. <laughs> neex na non neexoon na. ñun xale yi ñëw nag dañ ko gën a neex ndax dañ ñun dañ koy dekkil. xam nga xam nga xam nga waxtaan rek moo koy indi. waaw xam nga tabaski jot nga taxaw fee eh, xale bu góor bi. waaw da ngay defar dangay defar xar. mu ne waaw 10 000. Mhm. nga ne ko waaw amul problème yéegal defaral ma xar mi. waaw fekk boobu waajee koy def sax wala wala soxna si moo xam koo ci mën a def. la tax man la tabaski neexoon na. Mhm. da ngay gis sa papa dafay dem julli ji jàkka ja ba ñëw. wallaay. nekk koo xamante ni macha allah. ñëw sumeeku. sol salopetu waxam. waaw sol si jiital siletment ba nga xamante ni. Mhm. moom la doon julli jee. jiitu sa yaay topp ci. Mhm. am na yoo xamante ni dañuy wax ne bidaa la. Mhm. mais fa muy sëgg di rey xar ma. yaay ji teg ci loxo. njaboot gi ni ñu toppantee teg loxo. yooyu image yooyu rafet. sa yaay gersu tagg sa baay. ci lim ko defal li mu defal xale yi donte ay xartum la leen jëndal wala vax. yooyu dafa daan neexal tabaski. mais nag waxuma la dara tubaabe gi mhm. mais dëkkuwaay yi sax tax na ba léegi kenn mënatu la defar xar sa biir kër waaw te mbedd ma ngay dem waaw si mbedd ma ngay dem ba pare li nga wax ni jigéen bu jonge moo koy def te jigéen ñi xam nga gannaaw yi jongeetuñu na ñoo xam ne dañ jóge secret de <laughs> non dama ne am na ñoo xam ne jongeetuñu am na ñoo xam ne da di xool rek ba pare rëy sax teg ci waaw mais yow boo rëyee doo jonge ah boo rëyee yaa fay des di ci taal léegi ku da ngay diig gis xale bu mel ni fitt gu mër sànni waaw loo baatare lu la mu ko teg ci wet ga mu ngi noonu xam nga loo léegi yooyu noonu neex neex yooyu gis nga yi dugg parce que neex neex yooyu góor ñi daal liñ koy jooy am na benn góor man man maa bëgg ku may jay <laughs> ma dee ma <laughs> yi daf ci baax non dafa baax maa ngi ci nuyu bu baax a baax Mor Talla mm-hmm. nekk fële ca diwaanu Tëngéej mm-hmm. ca boori Sedima ak Cité Tako wala mm-hmm. Mor ñu ngi koy nuyu bu baax baax macha allah ci xeet xeetu mbaax mbaaxam jëmb am sama rakk jox na ma ko Mor ñu ngi lay bu baax di kontaan ci yow euh, euh, xeetu baax baax yooyu góor ñi dañ koy soxla wallaay dañ koy soxla surtout nag tabaski jii billaay tabaski ji daal. Mhm. Euh, te ni ma leen ko waxee. gis nga nekk ci marché yi. Mhm. chaque jour nga mel ni Maada Thiam. moom nag amul jëkkër amul dara sama ma macha allah na ko yàlla dénk ko wéttali ndax euh, nag wax dëgg yàlla dafa wàcc loxoy maajongu buur séréer mhm. euh, sëyal ko ba jébbal ko aljana des toog di xaar di manduwaat babel dem baak borom ne ni wax te tollu fa woo fenn mhm. yàlla na yàlla may euh, la wéttali mag nag mu baax mu la wéttali mhm. man loolu laa lay ñaanal waaye nag bu événement jotee chaque jour su ma ko woowee téléphone mu ne ma maa ngi ma ne ko looy wut mu ne ma benn jaaro waaw mën naa dem jëndali benn benn xale benn jaaro dellu siwaat ñëw ne yée kii amul daal di carax jàppoo ko noonu ba bisu tabaski bu jotee. yow dina la fekk naaj wi dina la lakk ba nga ñuul ko. waaw nga tas ne tasar. Mhm. boole ko fanaan ca marché bi ak fanaan ca tailleur ya. Mhm. nañu teel a jóg man dama daan jaay marché wax naa la ko. Mhm. di teg ay robu tut fet ak yooyu di jaay di nga gis way jur woo xamante ni dina ŋàbb loxo doom bi na ŋàbb loxo doom bi benn junne ñaar téeméer lay yor fekk rob boo xamante ni ñun mooy sunu sunu star ñu gonflé ko ba mu ne nii ñu teg ko ci kanam yow daf lay leer ni amoo njëg gi nga topp ci rob bi natt waxaale bay bëgg a dee ngàbb xale yi ñu sonn tàng loolu itam dafay dugg ci tabaski ji dëgg la dàll wu ne nga rof ko ci tànkam rocci mhm. léeg nga xët ko ba mu narmeelu ndax énervé nga ndax nit ñi <laughs> xam nga li nga wax nii may fàttali bi ñu ngay nekk xale <laughs> dama daan jaay xam nga <laughs> xam nga marché ba wax loo xam dafa neex dëgg la xam nga marché ba ñuy jënd waaw ñuy jaay xàmme nañ ñuy jënd waaw dañu gis ku ñëw ñëw doxa doxa ba ne saay taxaw daan ne dàll bi ñaata ko ne ko 3000 mun na ko ma natt mun na ko bu ko sol de <laughs> waxaa rek buñ dàkkoo rek nga jël kooku na ko may jënd kay dama koy nat daanne xur daale bi dem mu ne ko jëndoo jëndaale woo mu ne ko ma xool mu ne ma waa nattal jéeg tànkam bi nga xam ne def na ñaari fan ci marché bi la ne la nit dañuy bëgg a sonal seen xale yi mu ngi noonu yaa ngi boot kenn ci naaj bu tàng bi mu ngi noonu marché bi xat léeg-léeg nga dégg ah, ñu benn ruq su sew soo xam ne nii lay des parce que marché yi dañuy lal ba lal ci tali yi événement place nga boot kenn mm-hmm. jàpp ci kenn loxo fii jàpp ki lu tax pourtant six millions yi nga yor am na yére boo xamante ne ni mën nga see am ñoom ñett ñëpp bu baax jubal fa directement bul sonal sa bopp cuuj day xam lekkam gis nga impaañ bul sonal sa bopp adduna bi ku sonn da ngay sonal sa bopp c'est ça amoo mu ñoo yàlla tegu ko kenn déedéet six mille francs nga yor ñetti doom nga yor demal si robe yoo xamante ni leer na bi di nga si am 1500 nga jënd si ñett muy 4500 nga yóbbu sa 1500 paas si. wax mais doo ko def da dem xooj robe bu 10 ba mu leer na di nga waxaale di saraxtu borom te du tax nga am ko loolu tamit sonal sa bopp la sonal sa bopp la nit daal jamono ji ñu nekk mm-hmm. feeti du jeex feeti du jeex feet bu dee dem yaakaar naa ne am nga ci élément ci xeetu ndimbalante yi mm-hmm. ñuy dimbalante te yàlla tax mm-hmm. ndimbal ca ba muy teel ndax nee naa la ñu ngi ci dernier virage bi ndax lundi la ñu wax ci des waaw semaine bee ci des sama classe gi sonn nañu lool lool lool lool lool waaye nag euh, euh, yàlla baax na euh, ku ci foog ne dara passé na boobu juum nga dara weesagul macha allah te lépp a ngi ñëw nañu muñ te toog rek te xam ne kii nga xamante koy bàkk ba mu lay ñàkkal fayda mu neex lool ba nga gis ko ci moom am na jamono yoo xamante ni naqari woon na ci moom waaye dafa toogoon muñ ko mhm. rayante ñafe donte nag ñi war a dimbalee nañuy dimbalee te yàlla tax te mhm. dimbal day teel mhm. ñun suñu soble saa nga ne wax dëgg yàlla ñu weer jaaraama ñi nga xamante ni ñoo ko joxe muy maire bu yoof ba waaye jaaraama itam ñi nga xamante ni ñoo ko séddale ndax su leen neexoon nag ñu damm ko seeni gafaka te bu boobaa duñ leen fëgg duñ leen laaj duñ leen wax dara dañ leen di bàyyi ak yàlla rek te xam ni loolu lekk lu koy ñu tooge leen rek. Petit Dia mhm. ñu dem déglu ji benn maa ko dund. voilà. Ndeye Pat Aw naa def ça va yaa ngi si jàmm dellu si war naa maa ngi leen di suivre baax a baax ngeen di wax si affaire ndimbalante waaw bien ndimbalante moom lool lu baax la muy tabaski ak mu dul tabaski nit ki moom boo ko boo ko ëppalee rek war nga ko mën dimbali te yàlla rek tax mais tamit man suma sañoon seen débat ngeen orienté ko si. xam nga naan dimbali ma dimbali ma mooy ne tabaski gi waa Sénégal ni ngi koy yenn wooyee ba fu minute bu jot wooñu comme ñu ñu nekk à l'extérieur may ma quatre mètres jésneer may ma cinq mètres jésneer te du kenn moo la koy ñaan du ñaar moo la koy ñaan nañ mat cinq ku nekk di la may ma jésneer may ma jésneer boo xoolee lu muy jar ak GP bi nga koy fayal rek bul xam ne mu toll wala ku la ci ñaan jesneer même boo ko envoyé wule fii sax xamal ni cinquante mille yi mat na waaw bu ñu matee ñeent wala juróom loolu ñaata la xam nga li ma la moo tax lu bëri dafa jar xool war ngeen wax tamit daal ci man ci suma sañoon dimbalante baax na mais ngeen wax ci waa Sénégal ni ñu yenoo fête bi te yàlla waxul loolu yonent bi waxul loolu bëgg cheveux bëgg dàll bëgg saak lu ne nga bëgg ko bëgg jesne lu ne nga dugg ci bis bi bëgg a sol lu mat six cent mille CFA te yow amoo ko say waajur amuñu ko teg ci sa mbokk yi nga yaakaar à l'extérieur ko ci woo bu la lee nga nga mer vraiment war nañu xoolaat daal ni ñu yenoo tabaski gi yenu ko korité yenu ko màggal yenu ko gàmmu ñu wax si yéen si côté boobu ngeen war a débattre pour nit ñi jéem a changer de mentalité xam ni féet yi mun nga ko def mais pas nag nga yenn ko yenn ko yenn ko ba sonal sa bopp ba sonal ci say mbokk aussi boo ko yenoo macha allah yaa koy yëg te boo moytuwul sab sëy dana ci yëngatu mhm. ñu doxe fa nag sib la ba faw mhm. ndax am na loo xamante ni bu sampee cib sëy rek mhm. loolu mooy law ndax bët bi saa su ne dañ la koy xoole donte fàtte fàtte lu dafay daal di am waaye fàtte moom euh, du ci mën a nekk benn yoon kon nañu rafetal jikko yi yërëm borom kër yi yërëm ñi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew bañ leen a teg charge yu méttee métti du ci nuy bu baax a baax Jumar Jaawara nag si saxo baan man nangu naa nga moom ma sama malienne boobu nga xamante ni macha allah kenn mënu ko waxal dara moom itam toog sa ak boroom këram rek ba jébbal ko aljana say mbokki boroom kër yépp ne gongo ñépp ne gongo macha allah rawatina waa France kon dañ lay ñaanal jàmm ak salaam sutura xéewal lu la waay waxal lu dul baax nga rek waxalu la leneen lu la waaye waxal lu dul jub nga rek waxalu la loo xamante ni sa jikko la kon yàlla sa jàmm yàgg ak sa jàmmi njaboot yaakaar naa ni élément bi am na solo mhm. waaye yenu gi itam bokk na ci mhm. eh, dama am wujju mhm. da daan joxe fàllaray ndey da daan joxe tànku njëkke sama njëkkee laa nga ne kon damay dem am lu ma jox ko euh, ci tànku xar yi mm-hmm. di nga jox njëkke li nga xamante ni moom lañ la may première njëkke jox ki nga xamante ni itam euh, mook sa jëkkër ñoo bokk ndey ek baay mm-hmm. léeg-léeg itam nga ne sama goro bi mënta ñàkk a sama mu xar kon naa fell ci benn tànk bi itam jox ko lu ca des benn tànk léegi sa sa njaboot lan la ñuy ndawaloo xam naa buñ ta lakkee mu jeex de benn tànk bi dem na fàllare gi dem na waaw nga ab tubaab nga taxaw nga sëpp ci balcon bi woo ku la feesal mu jël ca wàllam mu dem looy saraxe. moom tamit day jël. ah kay. ok d'accord léegi. dañuy jël seen wàll. man bëgg naa góor gu am fulla. Mhm. sama xaar dara du si jóge. góor ñi am leen fulla ak fayda téléphone bi boobu wax ñu ndax dinañ ko d'accord. waaw maa ngi leen di xaar ci 88 628 14 13 am fulla suñu waa ji nekk Touba ñu ngi koy nuyu. waaw waaw ki am fulla noonu waaw ki am fulla. dama nekkoon yaa tey. waa <laughs> gis nga yimpaañ. waaw mënoo kër kër yi ba am sam xar. de waaw saams ko. ñu ñu saam ko saam ko waaw parce que mm-hmm. jigéen ñi bu ñuy neexal seen sëy seen xaram la ñu jël di ko saam jël faalal rek jox seen ndey te góor de bu li ma ci jaaxal mooy góor buy jënd xar waaw danaan nit ci fàllar gi téye ndax baax na léegi nag fàllar nga dem jël jox ko sa yaay nga ne ko bépp jox ndey ja waaw jël tànk njëkkee génne ko te tànk yi ci gën a baax la ñuy joxe balaa ñu ne sama tànk sama xar dafa yooy waaw ah. merci beaucoup <laughs> moo sama xar mu yooy mi <laughs> ñu jël ko allo <laughs> allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. Euh, Adja Mbayang maa ngi leen di jaar bu baax. naxnu kazaalika mbokk. waaw maa ngi wootee Kaolack madame Diallo. madame jàlloo nu ngi nuyu waa Kaolack yëpp. waaw waaw te bi am na solo ñu ngi leen di leen seetaan ni en direct. merci beaucoup madame Diallo. vraiment def ngeen seen liggéey bu baax a baax ndax yéen fu ngeen toll yéen a ngi ñaax nit ñi. jërëjëf jërëjëf. waaye dafa fekk ne Sénégal moom ñu ngi dara dara. Mhm. Ah, ah, mi yéen na ngi wax vraiment li ngeen man jërëjëf madame Diallo yàlla yàlla yàggal taxawaay bi. waa mais mbaa xaru monsieur Diallo bi doo ko dagg rek gi joxe. <laughs> déedéet déedéet man yooyu moom <laughs> yàlla xaw na ma cee dimbali tuuti quand même. macha allah kon alhamdulilah. man dama am samay principe moom laay dox. te de boo amee fulla rek vraiment teewul it xam naa teraanga. dëgg la. waaw mais avec euh, tuuti kii rek laa koy defee. dëgg la. toujours nit dangay xam li nga mën rek nga di ko def. nga di ko def wallaay dëgg yàlla na yàlla gën a jàppale njaboot yi yëpp. amiin amiin amiin tabaski bi ñu jublu yàlla na ko yàlla yombalal mboolem jullit. allahumma amiin waay ñu fekkee ko tetal ko ñun ñëpp. amiin amiin madame jërë ngeen jëf ndey maa ngi lay nuyu ndey Peta maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. jërë ngeen jëf ñu ngi la koy delloo jërë ngeen jëf. merci beaucoup madame Diallo jërëjëf merci beaucoup. merci beaucoup sa participation am na solo. merci merci beaucoup. nit am principe bu baax a baax loolu daf ci am solo ma ci nuyu bu baax suñu yaay jee maire Fatou Sonko. waa Sokone la jamono bii nag mi ngi Ouest Foire maa ngi koy nuyu. yaay Bino di goro ci ki nga xamante ni mooy euh, naa Balde maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm nit dafay am principe. du tee nga xam teraanga. te it loo xamante ni boo ko noppee def noppi koo dégg. Mhm. kon jarul ak ŋaat-ŋaat yi rey sa bopp bopp surtout nag mu nekk loo xamante ni mm-hmm. sunna la sunna suñu mën a rafetal waaye nga dem ba dugal ci loo xamante ni daf lay indil ay bàkkaar yaakaar naa ni loolu man maa rafetalul si ah? maye yàpp ah ma rafetalu ma si maye yàpp da ngaa sëyegul rek jànq <laughs> waaw baax na bis boo sëyee waaw moom di ko def dama ne man maa rafetalu si maye yàpp ku may takk sax dama lay wax man du ma maye yàpp parce que man ma bëgg yàpp moo tax nga jaar ci digg day wax ndawal non man du ma wax ndawal yàpp laay wax xam nga surtout Maba Jaxu yàpp dafa bëgg yàpp gis nga bañ imagine toi ñuy rayal la benn xar nga jël xar mi yëpp saam-saamee ko mhm. borom kër gi sonnoon si xar mi kërti kërti ba sonn nga xam ne bu tabaski bi passé war nga ko see suppal war nga ko see defal dëxin war nga ko see defal xëlwa yooyu yëpp nga war ko si defal ndeysaan boo ne ana yàpp woo nga ne ko yàpp woo jeex na mu a la fu mu dugg nga fekk nga ne ko waaw weesu cher nga ne ko naa sa càmmañ sa sa jigéen bi tànk jox sa sa sa kiñ ma may premier njëkke tànk jox sama yaay fàllare mais xar ma jeex na te yow yaa ngi woon denc di koy togg. te ñu ne la saraxal néew di doole bi ci koñ bi. doo ko sarax. doo ko tal. doo ko sarax parce que lépp joxe nga ko déjà. yaxu digg ginnaaw ci faar ngay dese di. mu ngi noonu lépp jeex na. Ah. côté li ngay lakk mu féete boor. léegi nag bu fekkante ne yow ndaw lu jàmbur nga jël ko séddale ak ba mu jeex bu fekkee nga bëgg nan xam nga li may pétition may voté mooy góor ñi am fulaak <laughs> na kenn ngi ci. ayca allo nee ko allo. allo. allo. waaw man de Youssouf Gueye Mauritanie maa duggoon léegi. voilà sëñ Youssouf ñu ngi lay nuyu. ay allo. waaw ñu lay déglu. Mhm. allo. oui Youssouf. waaw man maa duggoon léegi kii di waxee Mauritanie. waaw. waaw ma ne comme ni ngeen waxee jigéen dafa war mun ci biir këram surtout jour tabaski wala bu tabaski rek waaye lu bari jigéen war na ko mun. Mhm. waaw. ndax jigéen ñi ñun ñu moo ñoo ñu jur ñoo ñu yor. Mhm. kon duñ leen war defal lu lu ñu bëgg ci ci kaw suñu am-am. dëgg la. man mii di waxanteeg yéen. Mhm. allo. waaw maa ngi dégg baax Youssoufa. man mii di wax ak yéen. waaw. def naa ñaari at yi nga xam ni béy laay tabaskee. béy ngay tabaskee. waaw dama jabar mu ci mu ci ci wax dara. dagan na wallaay de wallaay ndeysaan ñu bare ñu bare di ma ci hmm. waaye ca dëwënt bare na ñu rey béy de wallaay waaw waaw jërëjëf tibb la boroom koy wanaasu am na lu am wax na lu am solo mm-hmm. ñaari at mu tabaskee ba nit ñi di ko ree <laughs> waaye ca déwén sa am nañu ko fekk ci yëf ya dëgg la parce que xam na ne dafa def lu mu mën lebul abbiwul kese euh, macha allah kon ñu ngi koy jaanal bu baax a baax géey boobu boobule mhm. di ñaanal soxnaam ak njabootam yëpp parce que nag euh, am na kii ñoo xamante ni jigéen ñi mel ni man mhm. seen làmmeñ yee gën a saf làmmeñu bëy yi mhm. boo yegg seeg sa bëy rek bu ñu la tàccoo delluwaat ci seen i mbokk <laughs> waaye non dafa am de non dëgg la dafa am de te gis ñu jëndi xar tabaski ba ñëw ñu fay dem yow bu demee seen kër nga fay lan nga wax si xarum jàmbur loolu ñàkk fayda la yow xar bi moomoo ko di. te billaay jeeg bu ci moytuwul di fay. waaw di nga gis loo xamante ni ci sa biir kër man gis naa jeeg yoo xamante ni dañuy fay ba pare. waaw fu ne ñu woote fa téléphone. ku leen jël si fu ne ñu baddax fa ndaw pour ku leen jël si. <laughs> fay ga bu ñu amee goro yoo xamante ne nag eh, ñoom dañoo dañ leen di off tourner la page. dëgg ngay jàpp nag sax ne dañ maa liggéey dañ maa sëriñtu fekk booba sax xamadi moo la jëlee ci kër ga. kenn sëriñtuwul la ba xam ne boo. fayee dafa jar fay. boo nekkoon kilo boo ñëwee liibar ngay doon. ah yiw koy wala genn waa liibar <laughs> yàlla nañu yàlla musal si fay jeeg buy fay waaw roñu roñu doñ roñu roñu ñëw jigéen du yor ji koy xorondom xorondom merci yeggale <laughs> c'est que bàyyil jur gi ma la jur <laughs> c'est que yaa ma bëgg <laughs> xam nga imbaañ maa ngi lay wax léegi si xarum tabaski nga fay si dem mhm. yow moom moo xar mi dèjà déedéet sa borom kër moom mooy tabaski waaw mais góor ñi dañu war am toll ne bu ñu jëndee xar mi xam ne seen xar la mais mhm. bu ñu ñëwee di eh, xabar xabar yi si xar maa ngi nii mu foog ne moom itam moom xar mi wala jabar ju ne nga jëndal ko xar yow ba nga bank say loxo toog kon yow tabaski say nit say soxna non ñoom tabaski nañ parce que may nga leen xar mu tabaski waaye yow tabaski waaw mooy neexal say soxna mm-hmm. te yow defoo la yàlla sant merci beaucoup am nga ñetti soxna jënd ñetti xar mm-hmm. kon ñeenti xar nga war a jënd bu fekkante ne soxna su nekk da nga ne xar moom moo ko moom mm-hmm. defee yaakaar naa loolu la mais bu ne yow xar mi sa ko daf ko jënd mais foofu nag jigéen ñi naa leen mooy nañu yombalal des fois dimbal gi bokk na ci su ma leeree ni man sama borom kër moomu ma ko moom kenn damaa yor dafa ma yor yor sama morom. yoraat sama morom. Mhm. naa ci am kenn koo xam ne day am mat gu toll ni mhm. damay contacter samay morom ne leen bët du yéen waaye xam na lu bopp attan te sunu borom kër ñu ngi koy lor ëllëg yomal xiyaam yàlla dina ko laaj an sa tabaski mhm. donte sunna la su rafet bëgg naa am ci yoolu sunna bi kon nañu boole tabaski gi muy benn ñu def benn tabaski. Mhm. suñ ca jógee nag bu paasee. Mhm. xar yu yomb yaa ngi fi. Mhm. ku mu neex nga jënd sa xar def sa biir kër bu fekkente ni sa boroom kër ñëw na. nga togg defar sa kay. mais tabaski daal nay doon benn. ñooy xool na kër guñ koy dajee. loolu jigéen ju baax moo koy defal boroom këram. ci ndimbal la bokk. ma waaw mais loolu day fekk jigéen ñu wóolu woon te. ñu wóolu woon te génération bii léegi. wóolootuñ kenn. waxati na paquet dëgg de. yow ma dem xalaat ko yàlla lafal cetal <laughs> amiin gis ngay bañ wóoluwante mooy waral tax eh, demlante neex. wala déggoo ma. elle est très dangereuse set set set yal na la yàlla la fal cat te yàlla may la bisub jàmm ak salaam caam amiin amiin xam nga man su ma la wóoluloo du ma ñëw sa ba fay lekk bay naan déedéet poobar ba dootul tudd poobar bu mokk sunguf lay doon mu ngi noonu léegi nag yow bu fekkante ne yéen ñaar yéen déjà bu ngeen dajee si xew rek mm. gite ngaa say doon waaw kooku xalaatu leen boole benn tabaski déedéet xalaatu leen ko xalaatu leen ko léegi nag bu fekkonte ne seen nekk neex na gise mm. ba day yomb mais bu nekk ba neexulee ku mm. nekk day aaj sa garde dëgg la man sama kër laay tabaske kii ne sama kër laay tabaske bu ko defee nga sonal seen jëkkër yooyu wallaay dëgg la yaa may dégg mais bu fekkante ne ñëpp yéen a ngi si jàmm man ngeen dem kër kenn ki ngeen tabaskee fa kër ga gën a yaatu bu fekkante ne kii mu nga sa kër gu mag ga ñii ñu ngi si appartement yi après ngeen regroupé benn tabaski tabaski bu neex ba ngoon ngeen ñibbi wallaahi yaa may dégg loolu dara dàq ko te ko kat foofu ndeysaan góor ñi da ngay gis dañuy kontaan xoolu bu ñu jullijee ba ñëw waaw ba jabar yi daje waaw seen bëñ yi ci biti rek lay dëkk waaw ñii rek ndeysaan <laughs> yàlla bu mu nekk seen kër yaay nga xam ne ñëpp dañoo ñëw tabaski si foofu wallaahi ndeysaan boobu ambiance lan moo ko gën a neex ah mi ngi ciy dëkk àll yii de gisuma ko dara raw nañ ci àll bi raw nañ ñu mais xam nga ñooñu dañuy sëy rek te yàlla tax wallaahi azim parce que foofu dangay ngay dem fu mel ni Touba mën naa ko tudd waaw nga dugg benn néeg doo xamee bii mooy néegu Adja Mbaye wala bii mooy néegu Ndeye parce que néeg bi lépp billaahi événement bu jotee dañuy nuróole lépp. dañuy àndandoo néeg ba sori na sax. waaw waaxul fekk leen ci taatu niim gi li ma di ko wax toujours garabu niim. waaw ñoom ñëpp a ngi toog. teg seen ataaya mu ngi noonu di waxtaan doo ci xamu ju kii doo ci xamu peccor ko kii yor seen i sër di mboros mu ngi noonu su ngoon jotee ñu dem jaayi mhm. lu ñu am ñëw sagale ko seen borom kër mhm. yeggaleel xam nga bu ñu toogee kër ga yëpp yëpp nuroo mhm. néeg yi yëpp nuroo amul lu ngeen di xëccante déedéet yaa ma seen borom kër bu ñëwee day nekk ci jàmm parce que nee naa la góor gu gën a nekk ci jàmm moo la gën a gudd fan góor gu la gën a nekk ci fitna moom moo la gën a kii waaye tamit nag des fois góor ñi dañu bëgg fitna nag ñoom tamit des fois dañ naa ñoom bëgguñu seen jabar jubboo lu njig njaag ñooy njaag am na ñoo xam ne ñu bëgg sax seen jabar yi jaaroo taal tabaski boobu ngay wax mhm. ñoom sax ñoo si dul dox dëgg la parce que nit war na am kilifteef gu toll ne mhm. comme niñ koy faral di waxee yor say soxna man ngeen ilif ba boo nee ñuul na ñu ne ñuul na boo nee weex na ñu ne weex na parce que charte sëy la bokk gannaaw boo ko dëkkalee dëkkoo ko pare mhm, li war si moom nga di ko def war ngaa mën a yor baatam waaw ci yoon waaw léegi nag yow war nga am mat gu bu fekkente ne sa yaay mu ngi dund dara gënul neex nga ànd ak say doom ànd ak say jabar ngeen dem tabaski jël seen yaay bu dee dëkku leen. Mhm. loolu dafay neex maire bi day bu fekkee sa yaay ak say papa dunduñu. waaw nga am sa kër aawa am sa kër ñaareel. waaw bu ki jotee buubal njaboot gi. waaw moo xam aawa ja baay fekki jee moo xam ñaareel baay fekki jee. ndax léeg-léeg bi mooy nekkee ci kër goo xamante ni. Mhm. kër gu mag la. waaw muy kër gi nga xamante ni moom nga moomal sa bopp. waaw ñaareel ba ab appartement nga ko luyeel. donc li ngay def mooy dajale leen ci kër aawa ba kër gu mag. waaw xale yi bëggante. day tax xale yi xamante sax xale yi mhm. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. parents yi wane ko doon te ñu rafet njort nga ko waxee. donc euh, yooyu yëpp xeet la yoo xamante ni ci tabaski ji incha allah suba dinañ ci ñëw. Mhm. ñu ngi may signaler ne temps bi jeex na. Mhm. te balaa ñu fay Grégoire a fekk. Mhm. ma dellu remercier waat rek sama jeeg bi nga xamante ni moo jaar fi da koy ñëw di ko jaay muy ndey dëcc si la. macha allah ngeen mën ko am ci 77. 677 53 47. 77. 677 53 47 tey moo ne ma xaaral ma aw Daba Diaw waaye nag euh, Diaw Fara neexu la aw <laughs> macha allah ñu ngi koy nuyu au passage ca xam ne rek suba ak ginnaaw suba la ca topp yëpp moom lañuy ñuy àndaliwaat kon jaajëf ndey dee ca si la fële ca diwaanu Tëngéej ca sant yàlla mais bu génn rafet na macha allah euh, te neex na si tàngaay bi neex na ma de man parce man na nooy rek noo macha allah bi bi bi mooy bi mère Dial di wax nga xamante ne bu tàngee ba tàng sax. waaw nga koy lëmasee dugal ci frigo bi ba mu sedd ba nooy nga cëppoo waat. nga <laughs> allah yal na jàmmam yàgg. amiin itam noonu laay def rek di jaajëfal képp koo xamante ne daf ñuy seetaan ndax damay mhm. am mbégte saa su nekk di jàkkaarloo ak yow. Mhm. di jaajëfal rek comme ni ma la ko waxee léegi sama jeeg ba ah Jaynaba. na Jaynaba Jaynaba li. waaw ba si ah mu Mouhamed Ndiaye di ko jaajëfal bu a baax. di nuyu itam yaayam ah, mère Aïta Samb di ko wax ne bu baax a baax a baax naa ko démb xam nga ñi si bokk nga boole leen ci waaw loolu dafa baax si jeeg bokk

baa ngi jub si te dafa tàng mhm. lépp lu ngeen mënti def rek ba defar seen bopp ba mu baax mu oyof te nooy yi defaral xale yi ndaw yi ay coiffure yoo xamante day yem ci gone xale da nga koy defaree fi xale waaye si ñoo xale bi defal ko gel épingle defal ko ko ci digg bi muy dox ci moroomam ne nii boole ko gàllu si noir woo xamante ni ba moo jegeelu la dinaa ci ñëw suba <laughs> ay damay rey ñu def xale 77 361 21 21. 21 voilà 361 363 <laughs> mu ngi noonu ngeen am ko ci Kunta Family coiffure yi tabarkalla macha allah bu ngeen jee mu defal leen ko. Mm. di jaajëfal ñëpp di leen jox dox daje suba ñu gën a ñëw ci wàccaay tabaski bi. sa whatsapp maa ko dund bi nga yéen bi nekk Mauritanie doon laaj. waaw bëgg a ci yëf yi. waaw whatsapp bi nag. nee naa leen fi yëkkati képp koo xamante ne dund na lu mel noonu si nga fay si ñu fay bàyyil message. Mm. wax ne lii man maa ko dund. Mm. nga bàyyil ñu ko 77 614 51 15 du groupe. mais lépp loo xam ne danga bëgg nga participer luy jaal ci télé bi mhm. te mu tombeek thème bi ñuy waxtaane mën nga ko fa indi mhm. ñu ngi leen di xaar foofu 77 614 51 15 dinañ jox dox daje suba si 14 mhm. ñu waa ñu ko bu baax a baax jaajëfal waa wakaam nga xamante ni fa nga jëm macha allah jaajëfal ni ma ko waxee sama jeeg bi jaar fii tey ndey dee ci la ni ma ko waxee rek boolewuñu sunu càmmoñ mu ñuy ric ci mbalañ fang te kon bu boobaa itam danañu am fulla goo xamante ni dañuy toog sunu kër ndax sunu tuut boppaa safum ñeex gi ñu yor yaa booy ya mën nañ cee mbaxal nag di ci dund Mm-hmm. te ñu wàññi dara te du feeñ fenn waaye dañoo ñëw boole ñëpp euh, kon mën ngeen ko am ci 77 677 53 47 remercier bu baax a baax ni ma leen ko waxee ka may ni muy Asu Ndiaye di beneen jeeg di jabari jëmb ñoom ñëpp daal maa ngi leen di gërëm di leen sant gis naa ni ñu ma jàppee kon mbokk yi ñu ngi leen di tàggu jox leen rendez-vous suba ñu dellu si waat àndaat ak yéen ak sunuy invité incha allahu taala euh, ci biir seen émission kër gi ci seen gën gi télé la 2STV asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fi amanillah ci kër gi